parrainage bi nga xam ne andi ngeen ko euh, di leen félicité ci turu président de la république sunu kandida son excellence euh, Macky Sall euh, mouvement bi nag li mu indi muy ay junniy junniy parrainage bettuñu ndax ni ngeen ko waxee yéen a ngi Sénégal fépp te nag aussi mouvement bu bëri activité ngeen macha allah ñu suivre ko kon tey mun naa jàpp ne li ngeen liggéey yëpp indi si ngeen ko. Euh, ndax yàgg ngeen ne ci terrain bi di ci yëngu di xamle politique président de la république di xamle PSE bi euh, moo tax tey jii euh, bu ngeen indee lu toll nii ci parenage aussi man duma ci am benn surprise du ma ci am benn mbetteel ndax seen liggéey commencé ngeen ko laata sax ñuy wax élection wala ñuy wax parrainage dellu ngeen ci askan wi di leen expliquer li nga xam ne moom la président de la république di def ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu mbay Euh, defe naa ne fekk naa leen aussi ci benn réunion bu mag a mag meeting bu ngeen organisé seen représentants yi jóge fu nekk ci Sénégal kon tey bu ngeen indee lii it euh, vraiment euh, dañu ci am satisfaction bu mag ci turu sunu candidat te xam naa ne aussi déposé ngeen ci délégués régionaux yi topp ngeen aussi maanaam ndigal bi nga xam ne joxe woon na ko joxe ngeen fu ne ci région yi waaye lii ni ngeen ma ko waxee mooy li nga xam ne au niveau national Euh, moom ngeen indi parce que aussi organisation nationale ngeen waxtaan ngeen ak nit ñi ni nga ko waxee parrainage moom bu jaaree yoon rek du yomb ndax nit ñi dangay ngay jàkkaarloog ñoom wax leen lu nu mën a dégg ñu mën laa signal kon liggéey woowu am na solo te am na ñu yaakaar ne lii lépp it day dal di doon ay wat ci tuuru bés ba incha allah te xam naa ne da ngeen continuer liggéey bi sur le terrain ndax du ñu parrainé rek dal di toog dañuy fexe ba pare ne parrainé Macky wote Macky te xam naa ne ci ngeen ne kon ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax monsieur le président ah ñaan liggéey wi aussi ngeen tàmbali mooy Màkkee ñu ñor mu law gën a sori ci Sénégal eh, incha allah.